di la jox sa wàccuwaay aussi tamit di am contente bu baax euh, ñëw fii bi nga ñëw yàgg buur vraiment content naa suma xol seet na di nuyu ñu lay suivre yëpp di nuyu sénégalais yëpp di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq aussi tamit rawatina ci wéru safar gi ñu nekk euh, képp kuy murit maa ngi lay siyaar di la jox sa wàccuwaay rawatina nga doon jullit rawatina nga doon taalibe Serigne Touba mangin ngi nuyu ñep di jégalu ñep di baalu ñep ak di nuyu sumay supporter ak sumay am di jam ak ñi nga xamantene sumay encadrement ak sumay staff ak euh, école de lutte Balla Gaye numéro 1 bu Géejawaay di nuyu suma trondo bu baax ak suma papa ak suma yaay ak euh, suma staff Mbaye Diop Talla Mbengue Modou Fall Simon di nuyu Aziz sama papa ak Baye Massata Korndiak hmm, Bara Gueye Kilingewel Omar Gueye ah, ak Simon maa ngi lay bégg bu baax donc di nuyu ñëpp waa France Italie Espagne Angleterre bàyyiwuma kenn diaspora bi yëpp daal maa ngi leen di di nuyu ancien gloire yëpp di nuyu mbër yëpp ak famille làmb waaw. pël fan taam ngeen toogal nee naa leen du yomb tey nag Balla xam nga nee naa la boo toogee ak champion bi nga xamante ne àdduna dañ koo bëgg xale yi bëgg ko di ko tiitaroo. kon faaw nga dugg ci carrière bi jaar-jaaru Balla gay tay boo ma doon wax sa jaar-jaar ci lamb ji lan nga may wax. wa jaar-jaar kon ñëpp rek ñoo bokk jaar-jaar mais aussi jaar-jaar yi wuté na rek waye jaar-jaaru lamb mom ba nekkee da ngay tambali nek di fo di wonte beure di jang soit ko mu yaq sa jang wala ngay jang métier mu yaq sa jang métier ba yalla def mu mujj nek ci lamb aussi tamit ñu yaq na suñu jang yaq na suñu métier. ba yàlla def ñu aussi tamit ñu commencé dugg ci làmb di ko foowee ba yàlla def ñu champion et puis ñu bokk ci famille làmb suñu papa nekk champion champion d'Afrique def lu ne si làmb aussi tamit def preuve am ba doomam yàlla dogal day ma bëgg làmb ba nekk ci champion kon donc vraiment kon ñun dañoo bokkul làmb ndey ak baay ci gàttal comme ni nga ko waxee sa papa nekk champion d'Afrique ci làmb doon daanaan ci làmb muy suñu papa Doubalees ñu koy ñaanal gudd fan ak wér tey jii nii euh, dañuy gis ba nii nii sax mbër day doon mbër mais du bëgg doomam doon mbër mais bi ngay dugg ci làmb ji moom réaction nan la woon ak sa yaay. non sama papa mosul yëg sax ngi man dama ba suñu famille même sama yaay sax yëgul noonu sax donc dama entraînement ko ndax sama papa lépp li nga xamante ne mooy moom bu jugee bu jugee def euh, bu génnee ci kër gi avant moo añ day naan ataaya tamit maa koy ataaya maay boyal maay def lépp même bu ñëwaatee aussi tamit génn dem bulot bu guddi fekkee man maay ataaya maay def lépp kon donc moom bu ñëwee rek jour te gisuma te togguma ataaya dama laaj fan laa nekk ak yu demee noonu waaye yàlla dogal na balaa moo balaa moo ñëw dinaa pare li may def ñëw toog di ko xaar ba pare ma ataayal ko jox ko jox. moom lépp mu dama ko nëbb mais bañ toxoon a Kër Massar mu fekk ma man a mu fekk ma géejuwaay mu yëg ne maa ngi bëri mbapat di toj mbapat yi mais ba léegul xamul sax dañ naan du bëri mais xamul kàlla parce que mosuma ko wax damay bëri finalement nag après laa ne ko la yëg ne damay bëri mu ne mooy damay bëri ma ne ko waa mun ne ban écurie nga nekk ma ne ko écurie Waalo école de lutte euh, Balla Gaye mu fayal ma boobu ñu ngi fayalan xaw ma 4000 xaw ma 6000 pour inscrire et ak euh, defar licence loolu après le moment ma vraiment ci le waouh waouh waouh premier combat arène nan la démé won Balla ak ñaata la na ci fayo wa son premier combat arène 2005 le 2 janvier 2005 wa 2005 la ñu fay ma ci 40 000 Samba ak Samba Lo bu kees ñu ma ci quarante mille vraiment. waaw boobu bi ñu la fayee quarante mille euh, naka nga géré quarante mille yi yaax sa staff yaax ñi nga xamante ne ñoo doon topp sa ginnaaw ak jouru combat bi nan la def ci yow. waaw non quarante mille boobu jamono jooju man damay toj mbapat maanaam li may li may am ci mbapat sax du ma ko am ci làmb parce que boobu suma manager comprendre na ma sa manager Zaguiène yàlla na ko yàlla yërëm te xaar ko àjjana. ndax boobu moo ma doon ménager moo ma daan fekk euh, ci école ba di yëkkati xaalisam di ma may di ma ko jox 40 minutes tikkiwuñu dara boobu man rek stade bi rek sama boor bi ma nekk feesal naa ko ak samay supporter kon quarante minutes yi amul lenn lu mu la dikkee amul lenn lu mu facc man waaw loolu daal war na ne rek am naa contrat mais amul leen lu mu dikkee ci man ma ci sant yàlla voilà bëre parce que yàlla dogal na bëri naa ci am naa ci ndam. mais quarante mille yi bon du ci dara pour mën a. jaajëf euh, léegi nag comme que génn nañ ci carrière bi ñëw nañ sa diggante ak Samba Laobé bi mooy sa premier combat arène yàlla may la ci ndam ñuy dem ñu naan Balla Gaye Balla Gaye succès commencé dugg naka nga géré woon succès boobu en tant que xale nga nekkoon ci yoon làmb. waa xam nga ñun tamit ci yàlla dimbali ñu ragal woon trop suñu papa ak euh, suñu. entraîneur mi bay Balla parce que heure entraînement fu mu ñu mëna fekk ci aduna dañuy bay li ñu def ñu entraînement heure tëdd aussi tamit fu mu ñu fekk dañuy dem teddi parce que suñu papa bëggul ñuy dox pardon ñuy dox guddi bëgguloon ñuy dox guddi bëgguloon ñuy taxawal aussi tamit sax ci mbéd wax ma nag nak heure tëdd jot te tëdd woo vraiment lool nak mo ñu gëna dimbal suñu carrière yegu ñu succès bi yegu ñu dal parce que amnañ ay kilifa ak suñu wajur yo xamante dañuy tek ci raay bi tek ñu ci yoon moo tax amuñu ci benn pression daal di ci yëg succès wala di ci yëg yenn yi parce que suñu xel yëpp mooy objectif moom war a nekk champion suñu objectif mooy waroon nekk roi des arènes kon lii ñu ñëw rek lu ndaw la yoon donc voilà. macha allah dinañ ñëw nag ci combat yi nga xamante ne weesu nañ ko. ak fi nga toll. mais balaa loolu dañuy njëkkee ci sa diggante ak Gris Bordeaux. Mhm. njëkkoon ngeen a yàlla may la ndam muy décision arbitre. ñu taxawalaat ko ñu ne confirmation lay doon wala ngeen leeral tey ji ñu dem ba ci biir ñu ne Gris na day delloo avance bi bi nga ko déggee nan la def ci yow non man na wax dëgg yàlla man euh, xam nga mooy li nga wax léegi rek bëriwoon nañu yàlla dogal yàlla moo may ndam amul décision arbitre parce que décision arbitre bu fekkoon man kese sax maa ci mën a maa si mës am ndam sax ñu ne waa réglement des sports la règlement jox na ma ndam donc sama ndam la moo xam lu mu munti doon mais aussi tamit yàlla dogal na ñu doon dox suñu combat ba yàlla dogal mu def taxaw man du man may décider du man may joxe benn confirmation aussi tamit ne euh, lii laa war a def wala lee laa war a def samay encadrement la ñu waxal mel na waxtaan nañ ci ak Gaston li mu ci wax ak euh, Gaston moom laa ciy déglu moom moom moo ciy rendre compte man awma leen loo xam ne xam naa ko ci contrat bi loolu Aziz ma contrat bi amna na fi donc ñu ngi xaar japp jour wala japp date pour ñu mëna confirmer combat bi wa mais dégg na coow yu ndaw la lolu ak coow ak lamb ñu and wa loolu lolu dara. mais mom nee xana benen promoteur lay beurel ci yow mais bu nekké Père Gas rek dootu ko bëri est-ce que jappone tamit coow li fi amoon sa digënté ak Modou Lo Gaston ak Aziz ñoo teug combat bi lolu la dem ba ci biir mu dellu motax mu delloo avance bi. non non non xam nga lamb mom c'est que. du question Gaston ak Aziz wala nangam non non loolu boo gis nga promoteurs yi ñoom ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk baay mbër yi aussi tamit ñun ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk baay Balla Gaye mbër la ko ñëpp comprendre nga mais ça n'est rien ak Aziz moo def lii wala Aziz moo def la Aziz dafa nekk ci liggéeyam encadré Balla Gaye Balla dénk boppam li am solo lépp lu mu ciy waxtaan ak dina ci waxtaan ak man ak asaf bi combat bi Gaston Mbengue moo tëgg combat bi wax ak Aziz ba lii may wax ñun accord la ñu am accord xam nga accord xam nga accord waaw lañ ci am quoi en fait waaw donc moom lañ ci am ba léegi li ñu war def sax mais comme garçon suñu papa la euh, waxtaan naa kilifa sama kilifa tamit accord jox gëm xaar mais du leneen daal. mais tungu du teew ñuy nataal. ñii na jot nga avance ñii na avance lan nga ñu mën je wax avance baa ngi ci avance ba leen ci. bon xam bu ñu waxlee yàlla rek boo joxee nit accord rek daanaka mën nga ne jot nga waas parce que accord la mais du benn kon nu mu la Gaston expliquer rek ci confirmation bi lañ nekk jox nañ ñu sec sec bi retiré guñ ko donc vraiment man daal amul lu ma ci wax ndax xam naa ne jàpp naa ne am naa combat ndax du benn yoon du ñaari yoon laa sekk ak contrat waaw man yàqamti ma aussi tamit ba naan ko jox ma lii wala ma commencé lii wala nangam non. dama ne ko bu saison bi tijjee waxtaan na seeg sama kilifa loolu sax mënu jee sori lu bari sax na lu ci bëri xaw ko donc lu ma la ci wax rek waxuma dëgg te bugguma di avancer ci wax jooju mu mel ni comme si que man dama cee xam en cent pour cent parce que suma esaf cuune ñu benn cuune boo xamante ne dañuy def loo xamante ne ëllëg dañ ciy topp ci ginnaaw promoteur wala nangam donc vraiment man daal accord laa am samay entraîneur sumay encadrement joxe nañu accord bi loolu laa ci am te maa ngi xaar accord voilà. nga nekk euh, champion ba tey comme ñeneen ñi ni ñu nekkee champion. Mhm. nga toog ci li nga xamante ne mooy victoire. Mhm. en plus nga année blanche tey jii nii saison bi ci ubbi jëm. Mhm. ñi nga waroon bëreel ñëpp am nañ euh, combat. tey mun nañ ne giri moo fi des. pour nga bëre ak moom. Euh, est-ce que du la gàllankoor nga boo année balancé encore du la def dara. non année balance amu fi maanaam saison bi kay da nga naan confinement bi moo moo sonal ñëpp ren kenn bëriwul. moo tax la saison baa ngi ñëwaat. saison baa ngi waajee bi man ba léegi bu ma nee joxe naa accord am naa combat sama combat yàquwul dëggoo leen ñu ni Balla Gaye. benn lam du kënd. non benn lam du kënd xam nga tey bu fekkoon ne accord mooy boo bëggee dégg-dégg benn lam du kënd loolu problème la loolu c'est des détails pour ñoom ñaar waaw loolu ak làmb ñu ànd mais Balla Gaye Gris Bordeaux ñëpp xam nañu taxaw na donc ku lekk avance tamit aussi tamit xam nga ne lekk nga avance mais aussi tamit bëgguma ci sax loolu mun a ñàkk parce que àdduna moo demee noonu loolu réeroo la rek ci entre Gaston ak Gris maa ngi ñaan yàlla aussi tamit ak fi làmb toll xuloo waruñu jàppante waruñu nañu waxtaanaat xam nga jéem a ni ñu ñu war a gérer ñoom ñaar parce que réeroo rek moo am pour man man loolu laa mën a jàpp réeroo la aussi bañ ak làmmiñ ñoo dëkk léeg nga mat sa làmmiñ te ko tey te Gaston yàgg na tëggal giri giri yàgg na bëre Gaston kon loolu gisuma fi tey benn affaire boo xamante ne mooy loolu réeru am na réeru am na mais Balla Gaye ak Gris Bordeaux taxaw na loolu amul leneen. Euh, ba tey ci coowu làmb ji Balla Boy Niang la gars yi ëppoon li ñuy wax ba ci amateurs yi ñi nga xamante ne ñooy supporters yi ñii naan du combat ñii naan combat la par la suite ñu ne Balla Gris Bordeaux moo taxaw la moo tax ngeen écarté booy Niang dem Euh, song ki nga xamante ne mooy Gris Bordeaux Boy Niang arrangé wu leen wala dafa jotagul. làmb kenn moomu ko bay écarté kenn man de moom ma làmb ji keneen ak keneen moomu làmb ji tey loo fi mënti wax man am naa combat boo mu dugalee ci beneen gaam dag ma indi ay problème du dëgg <laughs> sama combat rek laa mën a concentré ci laa la mën a wax ndax yow <laughs> parce que parce que tey yaa ngi wax ni fi nekk nii. yow combat yi yëpp taxaw na yoo koy waxal ci waxtaanu combat rek <laughs> combat yëpp taxaw na. kon ñu ñëw ci combat Balla Gaye yi paase ci Modou Lo Balla Gaye laay njëkkee. Balla Gaye Modou Lo heure buñ tasee day métti. Mhm. mu doon dër bi ba gars ne Balla dafa xam Modou Lo ba buñ tasee day yomb sa côté. ñu ñëwaat ci Balla Gaye Eumeu Sène mais ci Balla Gaye Modou Lo la ñuy desandi ba tey yow ak Modou Lo la moo tax saa bu ngeen tasee yaa ak Modou Lo rek affaire bi dafay yomb sa côté da nga xam sara xam wala da nga xam fi ngay jaar Modou Lo wala lan mooy problème bi yéen ñaar seen diggante. waaw yéegi yomb ci ban côté maanaam. ci bëre bi. bëre bi ñaar deuxième fois bi dañ ne woon 1-1 lay doon. Mhm. nga ñëw nga ne 2-0 nga def 2-0 waa léegi saraxu Modou Lo nga xam. wala Modou Lo da nga xam fi nga koy jaar wala lan la bu ma paree ma ñëw ci yow ak Eumeu Sène. waaw làmb xam nga làmb moom da ngay am combat ànd ak say mbokk ànd ak say encadreur yàlla moo dogal ne euh, Modou Lo dama koy daan deux fois loolu kese la mais du question saraxam yàlla suñu borom moo ne lii nit da koy jaar-jaaram lii na ci am man daan nañ ma deux fois mais teewul dara damay toog rek muñ te xam ne lii la yàlla dogal. mais loolu du question sarax du question dara suñu borom moo namoon ne rek Modou Lo dinaa ko daan deux fois mais du ci gën ay sarax la wala day yomb ci man non non parce que tey combat bi waaw parce que combat bu ñu bëree nekkul combat bu yomb aussi yàlla moo ko ci doon rek waaw. ñu dem ci diggante Balla Eumeu Sène yow it ñu gis ne euh, sa champion àdduna yëpp nangu nañ ko mais benn côté fan sa Eumeu ba tey nanguwuñ ne yow euh, champion nga ci kaw Eumeu Euh, mën nañ xam tamit euh, saaboo boo tasee Eumeu Sène lan moo lay gàllankoor wala lan moo lay manqué ba tax saaboo ñëwee tey nga yaakaar ne tey ngay am ndam jour boobu na koy ñàkk si ñaari combat yi. waaw mooy li la rek kon ni ma euh, kon ni ma ni ma amee ndam deux fois ci fee donc noonu laa ko perte ci deux fois donc du dëgg làmb la dama waroon perte perte naa ko man pour man jàpp loolu laa jàpp dama waroon perte ne moom Eumeu Sène dina ma daan deux fois daan na ma deux fois. Lol, kessa la mais du. amna amna même bu fekke ne yow daanu nga sax ñak nga ko war nga warna am li tax nga ne li wala ndax dara boko dindé faaw nga tek fa dara deug du neex. wa moy xam nga sang nga wax may la deux fois la daana modulo Lo nga ne dafa yom may la yomul yalla moko dogal ama mm-hmm. sendan daan ma deux fois modulo daan ama sen deux fois mm-hmm. xam nga ñun ñep dañuy nangu ne suñu borom mo dogal te ni ma koy nangee ñoom it noonu lañ koy nangoo. waaw kon léegi d' ni nga koy nangoo ñoom noonu lañ koy nangoo léegi kon yéen ñett ñooñu. Hmm. damaa bëgg xam léegi kan moo ciy champion bi yow Modou Lo Eumeu Sène. <laughs> foofu noonu champion amu fa. si parce que kenn ku nekk daan na morom deux fois. kon est que jotul ñu defal leen tournoi. pay génn deux génn <laughs> trois génn ku nekk xam foo féete. waaw loolu mu xanaa mu nekk mais xam nga par exemple ñun ñett ñëpp kenn ku nekk daan na morom fois munoo fa lim kenn si ñun ñi ne champion. moo fay champion diw diw mooy champion diw bo waxee fi amna ko lo la mën a waxal fii am na ku la waxal fii donc xana li nga wax rek bu yalla dogaloon tey ñu def tournoi nga xam li tournoi la lool la nga ci lañu mën a champion quoi. moom la bi bank def tournoi bi teggu ko fofa toj def ko Peul production. production. boo daaw ne Peul rek. ah kon baax na. ma géré ko du euh légui nak ñu ñëw ci euh, li nga xamantene moy taxawayu taxawaayu Balla. Mhm. ci lamb ji. Mhm. tay ba mu doon wax sa taxawaay ci lamb ji est-ce que jotul ngeen liggey ak promoteur manam mu jaral la nga guéné sa xaliss promoteur bi guéné xaalisam ngeen out combat manam année blanche diex ci lamb ji. non année blanche année blanche xam nga période bu nek ak la cay xew at bu nek ak la cay xew tay ren mun na dakh manam tay mun na neex torop ba nga yaakaar deen moy gëna neex mu gëna naqari tey nga yew ak ciawarte ak contane suba do yew ak ciawarte contane ja àdduna moo demee noonu boo ko jàppee noonu doo sonn nañ jàpp na daal lamb làmb promoteur moo koy tëgg mooy fay ñaari mbëri yàlla jàppale ko mu tëgg combat am ci ndam am ci réussir ndax ñun loolu lay ñaan yàlla. waaw ñaan nañ yàlla képp ku tëgg làmb rek mu am ci réussir des fois moom mooy li nga wax rëq-rëq ci am parce que ay détails ak làmb ñoo ànd làmb coow la la commencé ca coow lay jeexee. mais ma gis mbër bëgg a bëri ak mbër. wàññi kasem dolli mbër boobu bëre. pour sauver làmb. ban mbër la kii nii dégg naa da ko doon def dégg nag laa ci am. waaw ah, ah, man de wax dëgg yàlla man de mosuma ko def nag ndax man xam naa ne daal làmb mun na am par exemple tey yow promoteur bi nga tëgg ay combat yu bëri am ci problème mu leer na lii day métti mun naa wàññi suma kase ndax ngir moom mu jëm bis bi bis bi bis bi am am solo daal maanaam bañ koo indi benn gàllankoor mm. waaw loolu mos naa def mais daal. wax dëgg yàlla jàpp naa ne daal làmb tollul ay kase walla nangam làmb nañ ñëpp jàppalante sa bopp nga def ko euh, boo defee ni sa bopp def ko keneen ak promoteur bi jàmm ngay am waaw nañ jàppalante rek ñool la. léegi nan la ñuy def ba sauver làmb ji ambiance su Balla ambiance su Eumeu ambiance su Modou loolu yëpp ñëwaat ba làmb ji nekkaat ci biir xolu nit ñi comme ni mu fa nekkee woon avant. làmb ngi ci biir xolu nit ñi làmb ji mosu fee jóg làmb mooy suñu cosaan la. loolu critique la boo xamante ne ñun ñoo ko moom suñu bopp nekk lu ñu jéggi maanaam jéggi xaw ma ñu dafa nekk loo xam ñun ñoo ko moom ñun ñoo koy dund ñoo ko xam yàlla moo ñu ko jagleel fii ci senegal donc lamb mënul dañ ci xolu doomu aadama yi waaw xëy na làmb moo toll période la période la période la boo xamante ne ren day neex déwén mu gën a neex période la période bii ñu nekk nii làmb dafa xaw a am tuti problème moy ke combat yi bari taxawul promoteur yi bari teguñu dëgg mën nga gis promoteur yi lamb yi ñëpp mbër yëpp bëri nga ne lamb jeex lamb neena lool moy aduna dañ ko jappé non rek. mais tamit sa digënté ak Sène euh, tey moom mun na ko bañ yowit mën mun nga ko bañ mais dafa nekk lo xamantene amateur yi ñoko bëgg ba tay dafa dess ci xolu ñi nga xamantene moy sénégalais ñi dundu lamb est-ce que yaa ngi bàyyi xel un jour dara revanche boobu faaw mu am jàppoo ne moom waxi mbër la doon wax peut-être après day jeex ngeen bërewaat yéen ñaar. non xam nga man moom ma dëgg yàlla pël man lu ma la wax sama àdduna man na lii laay def xanaa tey bu ma ci waxtaan ak balaa maa wax dara bokk exemple sama bopp laa wax de bu ma ci waxtaan ak sama staff bañ nangul ma ko mokkase ba génnee sama laaj man dootuma ci dama naan loolu mooy am ndëgam nee na suñu borom dogal na ne tey. suñu combat maak mom ñaar yoon lay am wax na donc dañ ko koy nangul rek loolu ak espoir ño and mais boule bi mën na changer. wa deug man dama la tax man sama bop la la wax la la wax mhm. boule a aucun cas lu mu changer changer bo ci waxtan rek man buma ci waxtan ak sama esaf war ak ñi nga xamanteni ñom lay liggéeyal. wa buma ko waxee ci ci ci radio wala ci télé wala lu mu mën ci doon non dama naan noonu dootul ci mais buma ko waxee nak sama ciobre bop wala mbalak la mën na ko sama ciobre bop te waxtaan mo samay saf wala mu wax la mais comme par exemple daal comme wax na lol dal amon wax deug yalla aw ci cadeau aw ci parole bo xamante dama ko ci wax waaw. mën nañ xaar troisième combat Balla Gaye Modou Lo. yàlla xam. làmb mo ko ko su wax na ci lu wax. waaw xam nga lamb mom fek yaa ngi nekk mbër di bëre lu ne mën na xew lu ne mën na am mm. man do la ko jàpp te man mbeur la nek ci lamb ji. lu ne mën naa xew lu ne mën naa am. mais bi nee na pare nga ci daan euh, Modou Lo ndax léegi moo ko yor jabo man de yow loolu ci yow laa ko déggee de. yaa ko gën a dégg ah man man <laughs> yaa ko man waxuma ko man moon taxawuma mu taxaw mu wax ma ko. ci réseaux sociaux la du privé réseaux sociaux yi la dugg. ah yee loolu yaa ma ko wax de man de yëguma ko nag. waaw léegi comme que man la ko wax maa koy assumé léegi loolu naka nga ko jàngatee yow lan la da ngeen am problème yéen ñaar wala lan mooy wala li nga bàyyi ci moom la wala lan moo tax. non non kooku du sama entraîneur de kooku mosul nekk sama entraîneur dañ doon tase olympique rek wax dëgg yàlla euh, gii bu may sporé ba pare mu bëgg jël ay séquences affaires yooyu quoi benn yoon boobu la xaw ma ñaari yoon mais du sama entraîneur de wax dëgg yàlla dëgg rek man am na am na ay entraîneur boxe ba yàggee làmb def ak làmb. yàgg na aussi depuis ma am 17 ans xaw ma 18 ans ba léegi maa ngi bëre man xaadim moo nekk suma coach boxe te avant ma xaadim di ko nekk Baye Balla boxeur champion du monde la champion d'Afrique la moo doon jàngal boxe ak monsieur Anne ak Ousmane njaay mi nga xamante ma nekkoon CEDEPS bu Guédiawaye bu ñu fa jógee après xaadim moo ñu nekk suñu entraîneur complet boo xam bu ñu amee combat bu ñu amul combat moom moo ñu entraîné coach musculation yi gii moo ñu entraîné ak lenn bi nga xamante ne moo nekk cité Aline Sow hmm, di nuyuwaale jëwriñ ba nga xam ne saal bi nga xam moo fa nekk wax dëgg yàlla ak gars yi fa nekk yëpp et puis di jaawale aussi tamit Daawdu Sekk mi nga xamante ne yàlla na ko yàlla yërëm te xaari ko àjjana yàlla yokki leeram nga xam ne géejuwaay gi yëpp wax dëgg yàlla perte nañu perte nañu ñàkk nañ nit ku baax nit ku yiw nit ku am colère nit ku koo xamante ne vraiment monument la ko quoi monument la ci géejuwaay waaw mais kooku du suma entraîneur wax dëgg yàlla vraiment léegi ñu dem carrière bal mbapat ba arène ba euh, roi des arènes mm. lan moo la ci euh, musa métti ci làmb ji. ah làmb de est-ce que war naa ci wax li ma métti. ci sa côté yow. ci côté. ci ci ci ci ñu daan la wala nga daan wala nga problème wala lan. ci lépp yaay xool rek lan moo la ci musa arriver loo xamante ne da lay choqué. waaw bi moom xam nga métier bi léeg nga am loo ci neex. léeg-léeg nga am nga am ci lu neex am ci lu naqari pël yaa ngi réeré ah. léeg-léeg nga am ci lu neex léeg-léeg nga am ci lu naqari. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw buur nee na. Mm-hmm. sa xarit sa mag dañ koo sàcc iPhone 11 sàcc xaalisam mu ngi koy ñaxtu fu ne. Ah. fu ne mu ngi koy ñaxtu si réseaux sociaux yi Instagram lii lu jaar. waaw mais àdduna noonu sàcc bi doy na waar de. xam nga liiru star la te yàlla def na mu nekk monument Guédiawaye te ñëpp xam nañ ko ku laal liiru rek moom daanaka am nga problème bu du jeex na ndax liiru moom boo ko laalee nga né Sénégal yépp nga laal rawti nag nga jël alalam ah sàcc nak def na lu ñaaw nak mo na bay sama yëfu grand bi mu bayiko mu bayiko té bayiko grand bi mom grand jantal grand la taalibe Serigne Touba la taalibe Cheikh Rafal la xamna ndaysan sa gay waji jël affaire bi delloo ko delloo ko ak tablette bi dom ji waxna papa ji waxna na suñu yëf man wax naa delloo ñu suñu yëf teg ko foofu nànk rek ñun dañ ko jël nga dem quoi voilà. waaw tey nag du ma toogee xew en tant que mbër dañu toog maa yow en tant que amateur. Mm-hmm. nga décortiquer ma làmb yi wala nga analyser ma làmb yi ñëw nii. ñu njëkkee ci guy gi rëg-rëg. Mm-hmm. waaw guy gi champion la rëg-rëg champion la vraiment daal ay mbër lañ yoo xamante ne combat bu neex di nga ko ci gis combat bu neex di nga ko ci gis parce que combat bu ñu bu Reug Reug bëggoon la lu yàgg combat la aussi tamit bu guy gi bëggoon la lu yàgg xëy yàlla mu ngi dogal ñu ngi doog a mais combat la boo xamante ne daal combat bu neex la na doon incha allah. mais combat mais dafa am feneen fu ñu ko doon séentu. waaw ah, muy Reug ah. Sa Thiès. Ah. nee nañ mhm. ndax risque la. lan nga mën a leeralal loolu ci gars yi wax loolu. da koo daw wala daw. Sa Thiès xaalisu làmb lañ koy ngéen lañ ko ngénte ngénte moo man mi la lay daw ci ay rek rek saa kees du daw sax ak ku mënti doon Salif di xale bu ndaw làmb nekk métier dafa am ay saf am ay encadrement na fu muy déwén ba kon ñun ñoo koy njëkk sax. mais nee kase bi kase rek rek moo ëppoon kase ak gar non non non non saa kees li mujjee fekku saa kees moom ci ay génération boo bëggee dégg-dégg. kenn kuy tax ngemb si génération bi ëppul buuloo ëppul kase ëppoo kase. non maanaam dañ ne moo rëg-rëg kase ko ci fayoon moo ëpp jamono ji kase biñ ko fay ci diggante moom ak gar bi. non non non kooku fay ñu ko dara ay wax la rek boobu gars yi ñooy wax nii rek di discuter amul sax waxtaan kooku da ko woo rek ne ko mu ne ko maa ngi lay xaar mu ne ko am naa ay mag am naa ay saf mais kenn ñëwul sax wax ko naan proposé ko benn kase ku la ko wax waxul dëgg. léegi ñu dem ci moom Sa Thiès ak Garga Mbossé combat boobu gars yi ne taxaw na ñii ne taxawul mais bés bu leeree lan nga ma mun a jox ci combat boobu. sa analyse. mooy li ma la wax xam nga tey fi nekk làmb ji promoteurs yi dañoo joxe seen accord nga joxe accord moom itamit salaam même chose ba léegi amul leen loo xamante ne rek ñoom ñaar waxtaan nañ ko ba war a juboo ba war a tënk ba war a joxe avance kon kon lu ñëwagul nag aussi tamit doo ci mën a commentaire ba di ci wax voilà. waaw mais Garga 2 Maama Lamine sa booy. ñoom ñaar tamit làmb ji taxaw na ñii ne garga dafa diis ci Mama Lamine maama bu daanee garga ndaanaan lay doon mhm. mais tamit bu garga daanee du bett kenn mhm. tey tamit combat boobu lan nga ñu ci mën a wax diggante Mama Lamine ak garga de waaw ah, ndeysaan ndeysaan wax nga combat bu neex ñaari bërekat ñaari ndaanaan parce que garga képp ko xam bërëm dafa rapid Mama Lamine na ko danuma gën a gaaw niwit dinañ xeex dinañ bëre combat la boo xamante ne daal combat rapproché boo xam ne kii du daw kii du daw te dinañu bëre ba naaw di nga bu gaaw bu jëli bi di am wala soir ki ñu bëre bëre bu neex. bëre ci kaw bëre ci kaw bëre suuf combat bu neex la waaw. Mhm. waaw ñu dem ci euh, mbay guy gi ak maam Balla ñoom tamit combat bi dèjà gis nga ne coow li commencé woon na bëri. Mhm. corona bi ñëw yàq ko. yàq ko combat tey noonu. Oh. combat boobu tamit. non ndogal la rek xam nga àdduna moom. feebar bi moo tax donc na ñëpp nangu ne rek feebar bi la amul problème et combat bu neex la maamal la euh, kii ñu tudd mbay guy gi champion la na na respecté mambal la mambal la du cuune mambal du cuune na xam ne waaw na xam ne mambal la du cuune tolof tolof nag mu ñàkk ci làmb mm. mbay guy gi maa ngi koy gis ñoom ñaar mais na ko respecté waaw ko jox cër bu baax mbay nag mbër la xale la xëy na peut-être yëfu xale lay dexee sañ-sañ la lépp doy mais en tout cas daal combat bu neex la aussi tamit ndax moom am na sañ-sañ yu bëre kii am na sañ-sañ yu bëre kon combat la boo xamante ne ñoom ñaar combat bu bu kenn foogul moom non dinañ ko gis ba moytu sax xeex ba sax du demee noonu bëre bi la gisuma ci xeex nag ndax bëre laa ci gis ñoom ñaar. ñu dem ci fils de Balla fils de Balla maanaam doomu la

fils de Balla tamit na ko daan ma ñoom ñaar aussi tam ñu nekk ay xale maa ngi leen di ñaanal daal euh, làmb boole na leen ñu ngi ñaan yàlla ci bis ba liñ leen di doyee yàlla dogal tey ñu ñu ñu wane ko ñu wane ko maanaam ñu wane ko ci lépp mm. parce que ay mbër la ñoo am ay champion lañu dañoo war a wane seen bopp bëgg dugg fi gars yi dugg bëgg a àgg fi gars àgg mm. kon combat bu neex la aussi tamit. ñu dem ci ñor euh, tàbbi gën gësam ak Sakandé mm. muy Boy Niang Tafatin ku nek sa solo gaa ngay <laughs> boo na ñor tabbi mo gën sa eh, tafatin ne sakande ma dama deg bo ñaa na eh. ñor tabbi mo gën sa ah. tafatin ne sakande ñom ñaar sen combat taxaw na ñor tabbi mo gën yëngal gësam sa <laughs> ñor tabbi mo gën gësam sa ah, ñor tabbi mo gën manam bu ñoree rek day daanu ah, nga koy eh, waaw ah, loolu de wax olof la de. keene Sakande. Sakande ah, waaw ndaw combat bu neex. maanaam xam nga Sakande combat du ko dàq. xam nga Sakande. man xam nga ko. Sakande nee nañ benn garab bu nekk ci àll la.